salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar bismillahi rahmaani rahim auzu min shaytaan rajim bismillahi rahim nu barkeelu fii ci xasida goo xam ne dañ ko def ci Sëriñ Tuubaa jàngkat yu bari nag jàng nañ ko mel ni sëñ Cheikh Abdou Bousso yaakaar na ko ay yooni yoon sëñ Yàlla Seck jàng na ko sëñ Abdou Lahad Touré xam naa da koy jàng waaye tey dama ko bëgg a wóorlu roy aw daajinam ndax maanaam leeral ci tuuti bisimilah barke Xaadimu Rasuul ma way ma way ka fab ab daram lal géej ba julli mu mat te bandawul xablawul xiblab sëriñ saa ngi ku dul sëriñ bi bu jullee sax ci déeg dana diig bu déeg sayaan dina sëy ab diir sëriñ baa ngi kii moom ci daaraam la génnee Ibra Fatihi sa ak Ibra Faal ak borom gaawaan mbërëm yaa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bii duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séeréy jëfam yaa ngi dëkkam bi moo mag ju maam mag am ngërëm gën a mag magam ñu naa ko magum mag sëñ bu mag baa ngi nongul na yàlla nongul yonnen ba nongu na nit ñi ñëpp nag ci nongoom gi njiit lu mat laa ngi loo sopp loola da lay far sopp sopp na nag yàlla ak bi ñu daal koy bu dul ko nag Bamba Afrique ñëpp jaamu xiram mooraadul islaam ji tey daagi dugub yaa ngi ba muy lewaatoog tubaab bii noon yëpp di ree di séentu jëllam ba seen gàcceg bëccëg gaa ngi moom rekk songoog tubaab bii nag lu mat fukki te yokkatul yuuxuwul kaamil bu mat baa ngi mboolem ku lew tubaab bi wetti ngaw ñaq nag moom nag mu roofoog tubaab bi fët ko mbër maa ngi ku ñam li sëñ bi ñam jam-jam yi jam yaramam mbaa sax mu faatu ku naw sa mbër tubaab baa ngi nasaraan bi nag lu mu nas yow bamba nocci nga ko nosru yu jox sa boroom lampub lëndëm gaa ngi maa yomba yombu la dem am dam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaani jaami jiit laa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaalewu ñuy bokkam du seen mampandoo nee leen ko maam jaa ngi ku dem ba dawme demoo deewoo rëfoo te rëfoo nga ñëpp salaan ngeen ron gu mag gaa ngi moom rek a songoog tubaab bi nag lu mat ati at te atte wuñ ko te woowul wàllu njool maa ngi te yoqatul yàqulit moom der ba saalutilit te yoqiwul yuuxuwul kaamil bu mat baa ngi bambaa fi leera li wonnu léppi njariñ mooy jant njolloor bu daj gox yëpp puj baa ngi sëñ bambakat dafa nekk ak noonu yàlla yi ab diir nag bu yàgg te juumul waaju mat jaa ngi sëriñ bi daan leen ci seeni réew ba ñépp nangu ñu wax ni nan ñëw ci réew mii jëm yaa ngi tubaab yaag ceddo yeeg korkat yi ànd di laaj ku am pexem lor na wax neexal bu doon baa ngi ñu daal di ànd lëgoo ku nekk pexem ma mu xam luñ xiin ci ay yàlla nax saayal ko ndam laa ngi sëñ bamba jël laxasaayu muñ ni fiit ci ndigam di gëm boroomam di kañ soppem ba gor saa ngi danaa la wax ñi bisik sëñ bii kiimaan yi ci am nga xam ni moo xam na léppam wax ju mag jaa ngi ngir moom bindoon na ci biir géej gi bayit yu wéral ni xam na kañ lay dikkaatu baa ical rujohi ila xawmi sahadatana wal tak fi naa yow ma jamhil xalqi ñëw gaa ngi tegal mahal ale wala saabi tegru dan nii tegaat sari han ila tuuba dikkam gaa ngi yim naa ko ngir màggalam gii doon safar di defar mbooloo mi loo def mu daal koy nawlu yim daa ngi yim naa ko ngir màggalam gii doon safar di defar mbooloo mi loo def mu daal koy ful duun laa ngi màggal gi kat moo ko daa def lim ci digle de mooy ñu jaamu yàlla ci sun sun digal laa ngi sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon waa ngi sëriñ bi déeli na nee koo gis mu man ci bisam bii bis bu ñuy dekki dañ koy ñeeti xem gaa ngi nee ñaari nit bu ñu nekkee kii di fonk bisam bii dana raw ka ko fonkul raas bu gaaw baa ngi ganaar ba jàpp gëléem xar ak bay yi ci des loo def mu gis ko bu leen koy ñéblu pay sëriñ bi kat xam na mbég tey ajanaak la fa ne loo bëgg ji saw naqar dem nguur gu rëy gaa ngi teewul mu wax ni bu waxtu màggallam gi di ñëw danañ ko yàkkaw li koo koy séentu nos gaa ngi yow nag nga nekk ci dunyaa ji ñu woola ci ren nga naa mëndig ba déwén wóorul lu bon laa ngi yow ren ñëwal bu déwén dee ñëw te fekk la nga ñëw déwén jéeg itam ngay ñëw lu wóor laa ngi Cheikh Abdoulaat noon na am nay gaay yu wër yu dëggal yoo xam ne doonte dañuy dox ñëw ñu ñaw ñaa ngi loo def ci màggal gi sëñ bàmbaa ngi gis te du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ñaqal ci màggal gi ñuqil poos bi def ci itam loo mën defal loo mënul jéemal déwén jaa ngi jëlal xasaa it loo man yow durus da nga am yoolub ko wàccee limub kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam nag da ko jafe lool lay wax ki man alxuraan nay boole yar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolub addis yi am yoolub xuraan ak bu màggal wéttalam waa ngi yooyu yëpp nag benn boo am rekk rekk la wax ku alxuraan faat sikkar it faat ko dab gaa ngi màggal gi ngay dabe mboolem yool ba gaa yee amoon tam raw la yow mii nga doon dab jiitu muur maa ngi kon na ku am yoolu magal gi lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu doon laa ngi jotaayu sëñ bamba bee muy ne akub yonenam ku bëgg a teewe na teew màggal si njég gaa ngi ku munta teew na nga jël aslëf te def ci ba tey bu yéen a sellee nga feeñal yéen a jëf jaa yoneen ba nag dafa gàddaay màkka jëm madina muhaajiroona ya ànd ak moom ñu baax ñaa ngi ñi leen di tooru dañooy lamsaar yi kenn gënu leen ñun ñii murit yii di seeni nawle yoon waa ngi ku dëkke Tuubaa de daa am kon muy war a mel gën gi itam am na luñ koy dénk ñaar yaa ngi nun gaa yi dëkk ak sëriñ Tuubaa ci biir dëkk bi lamsaar yi kat buñ yóbbu lenn muñ gaa ngi yoneen ba kat fu mu geesoo gi sëriñ bi mu teew ci ak wetam gaa yi baa ngi gaa yaa ngi sëñ Bamba kat nee na doo gis kenn man ko ci toolub yàlla bi alxuraan jëwriñ ju mat jaa ngi lansaar yi ñooy nun ñi am ay kër fii te nit ñi di ñëw yoneen ba wax na lu wér ci gan addis baa ngi lansaar yi ñooy nun ñi am kër fii te ni gan ñi di ñëw yoneen ba na lu wér ci gan addis baa ngi man kaana yoominu kon gan ñii nu leen di teral yoneen ba lii lanu wax toppal ndigal laa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xiif di kaf di ree belli moo gën bernde mbég maa ngi woykat ba nee na lu gën gi maanu maandu du tee buy dem di nettali gis moytu xas waa ngi yaatal ko tal ko yiteelal gan nga lam yite woo teyit balaa aajo woo leen nit nga balaa aajo leen nit faj ko ndam laa ngi yaatal ko tal ko yiteelal gan gi lam yite woo teyit balaa aajo leen nit faj ko ndam laa ngi saggan ba saggan déwén buy desiwaat du xalaat dalaat sa kër nga ne tuubaalu ñaaw laa ngi sa gan ba agsee ni moom daa sonn nanga ko wutal fu yaa musoonu fa yow féexal ko sas waa ngi gan dee ko jox soow soowte bul koy soowte bul ñagasal saxar kanam kon bu delloo naw la yoon waa ngi buy lekk it bu ko booleeg jëmm yooyu xamu leen bu dee borom kersa day suur lor ju jaa ngi bul gëdd bul xaste bul dóor nit donte day gone sax ci jeewu gan gi dafay yokk ndigal laa ngi bul gëdd bul xaste bul dóor donte day gone sax ci teewu gan gi dafay te bul njëkkanteeg sa gan gi sangu baak sukk ba gan munta génn di xaaraan ne ko ndab laa ngi sa gan itam munta sangoo fenn fenn fudul fam dal bu leen leen di rangoo ne ko dus baa ngi daa am yeti raayi mboolem gan ñi ñëpp ragal rang rago rang raxasoog rang aajo raayaa ngi gan goo ko def dana gàddaay duutu jaar fa sa kër miin gan mu gedd la gàccaangoogu kersaa ngi nëbbal sa jiko ti jikoo yiw te nëbbu sa mer bu mer te bu mar te it nay maare yëf yaa ngi sagan ba ak seen sagan ba saggan déwén buy desuwaat du xalaat dalaat sa kër te nga ne tuubaalu ñaaw laa ngi sëriñ bi baaxee la may lay gër yu yaa ni fayax mu am ganam yii bu leen mer loolu sew laa ngi gan it dafay yem ci kuddóot nag ñu doof ci gayit lu doon sa baax fa sa kër baaxoo ko ngor saa ngi gan yi dafa yem ci ku dóor nag ñu roof ci gayat la doon sa baax fa sa kër baaxoo ko ngor gaa ngi gan nag bu fekkee ni laajul lenn lenn gan nag bu fekkee ni laajul lenn gan la gu gën nga jenn de jëmbul gan lu wér laa ngi yow gan gi bul nekku gangal nit ku def la mu man ba jeexle tàkk nga koy ñaan paas lu soof laa ngi yonen bi it dafa wax ne addiyaa fatukat salaasatun ñetti fan mooy ngan addis baa ngi sëriñ bi fàggu na laajul kenn lu mu bëgg am lu di jox nit na doon lu man ndigal laa ngi laajuñ la yow gan gi wennu sa sëriñ bi de moo yor nag talaa ngay neexal kër yi waa jaa ngi ku dal ci kër gu ne war naa fonk kër ga mu dal ngir picc sax car ba muy dal naw ko roy gaa ngi liggéey bu dee jot nga ànd ñoom liggéey la nga man sa wërsëg it bu ko waajal bu ko waatal kër ga xel maa ngi saa boo sangoo génn duy say poos mu fees nga ne fees boo del siwaatee di laaj reer gàtt xel gaa ngi siyaare war na la néewul siyaare war na la kenn néewul bu leen ko defit ndegam da ngay joxe dal bi waat ko soof gaa ngi kii teeru am na la war kañ teeru am la ko war ku wàcci war war yi def na si njombe waar gaa ngi ñëwal te bi di tax teerul te bi di tax kon ñaari tax yii bu ciy toj sooxe ñax gaa ngi gan ñëpp yàlla nañu am màggal te dëkk yi am nu bég nu bég sëñ bi bég yàlla mbégam maa ngi gan ñëpp yàlla nañu am màggal te dëkk yi am nu bég ñu bég sëñ bi bég yàlla mbégam maa ngi kon biñ jàngi loolu ba àggal dañuy war a barkeelu rek ci li nga xam ni mooy xuqal bu kaaw bi nga xam ni eh, gannaaw sëñ eh, sëriñ su bare bare jàll nañ fa jàng ko jàngeen waxam jàng wu leer la kon li ñuy def rek mooy barkeelu ci li nga xam ne mooy xoqa bi su ko defee rek ñu tënk ko ndax waxtu wi dafay xaw a xat te xoqa bi nag li ñu jublu mooy ni ñuy wax gan ñi nga xam ne ñoo ñëw ci màggal gi te Serigne Touba eh, wax ni gan noonu la war a mel mag ñi xam ne Serigne Touba ñoo ne yoroon it yaren wi lañ yor moo tax ñu bëgg a barkeelu ci xoqa bi xoqal bu kaaw xala saadaat mooy li nu woon yare nu sëñ Bamba koy laaj mag ña mag ñaa ngi mag yi sëriñ Bàmba ñam yar mooy ñi xoqa misaal nan leen di jooy ak mag yi yonneen lu wér laa ngi sëriñ bi ne asamaan day jooy te suuf si day jooy suba ngoon di jooy jooy leen lu wér laa ngi yëm naa samay njàqarey xool nag ci ñàkk ñu baax ñoo xam ne ñoom du nañ kër gii ni kër gaa ngi ñoom topp nañ yon yonneen bii te wàccuñu ko ba tàbbee àjjana nan leen topp yoon waa ngi ay jaam de lañ woon yu daa woon jaamu yàlla boroom ba yàlla may leeni xéewal mag ñu baax ñaa ngi daanañ limaale ni bàkkaar bi waral musiba mooy regg ak julli wér doo nit ñu baax ñaa ngi daanañ di jóg guddi ngir màggal ko naafile ca nelaw guddee tuuti lañ ciy def ñu muus ñaa ngi daawuñ xalaat yit jigéen ba mu yàq seeni nelaw mis coro caam dañu ko miisoon ni yàllaa ngi lingéer ba ak jomba ñaaw ak ay dasu kado tus lay tus fa ñoom mooy durus xuraan lu doon laa ngi waxtaan wu mooy tudd yàlla ak dëddu àdduna ji te jublu laaxira tiit bis penc bis baa ngi li tax dañoo yare woon ngànnaay yi ñaw di ca dog mboolem lu dem ndog mu dem dem dog ko gaa yaa ngi dañoo wutoon néeg bu am nag ñeenti jën yu dëgër mooy fondement tabaxub mag ñooñu néeg yaa ngi na boog saxoo xii fanaane xoole ngir wutu yiw ak beru nit ñii te ma yàlla néeg baa ngi mag ñooñu dañ daa fegal kuy door a jóg pakk ya ba mu àgg rek ci yàlla ak jàmm góor ñaa ngi seen yoon yoo mooy jublu jëmmi yàlla sànni lu dul yàlla ak yoneen ba sëriñ bambaat magam yaa ngi dañ daa soxoo tuub di jiitloo njàq ngir li xam kattan ga daa dëddu yaakaar ngir ndigal laa ngi dañ daa dëddoo tam ci gépp fànn sàmm itam saxoo wakiirlu saxoo muñ gaañu baax ñaa ngi dañ daa jihaat ak bakkan buur lum ñu gërëm duñ geesu it mbiri jaam yi gaañu saf ñaa ngi seen yoon wañuy aw de daa am fukki yëf yu ko sos ku bëgg aw fii ñu aw kaay laaj fukkam yaa ngi kuy tukki faaw nga wut fooy jublu muy dëkk ba fawit nga am ku la naa la yoon waa ngi kookee di tegtal sëriñ lay doon bu mat sëkk nag moo lay gungeet ba nga ak git jam git baa ngi yóbbal itam dana war cib tukki moo di ragal buur yàlla nga naay la moo di njàpp set gaa ngi kuy tukki faaw mu ab lamp niitu ba tey mooy tudd yàlla di sellal niitukaay baa ngi du ñàkk it lu mu war mooy itewoo la ko war fawin mu wut yet wu yor naa nga laa ngi kuy tukki dana aw ci yoon te mooy te bu ko wàcci te bu koy wàcc ngir maa ngi ay àndandoo munta ñàkkit moo di bokk yu ànd ak yow ci dëgg ñu dul wor àndandoo yaa ngi ñoom mag ña kenn ku nekk ak may ga jagle ga it danañ fegal ku mu mat jaa ngi ñoo mag ña kenn ku nekk ak may jagle ga it danañ fegal ku mu àndal lor ñu mat ñaa ngi am na ci kuy yor am na ci kuy ci sikkar wenn tur la la jox nga facce say soxla dootoo sonn muur maa ngi am na ci kook menn mbir lay wax demal defi ko imaam mu doon ñaq mbaa muy ñuqi njëggaa ngi am na ci ñun junj rek ak na ci ñun junj rek ak liyaar la def defar mbirum taalu beeg soppeem ba waa jaa ngi ñoom ñoom ñëpp daal jëmmi docteur lañ bu xam lore nit danañ ko faj ba mu wér nag péng gaañaa ngi konel ci mag ña da daa gëm yàlla jaamu ko it tabeeg di laa biiri nit kum gis ñu mu jikkoom jaa ngi caag ragal yàlla lañ lay saafaraal ragi xol defal la maarifa ngay gis pay ba mbëri yaa ngi ku ci ñoom dana woon waayam ja topp ci moom luy tax mu àgg ca yàlla ndam ñu gaaw ñaa ngi ku ci ñoom dafa amas cekkareem su mu yor ci lay falee ci lay fil mboolem yi nëbbu ci nguurug yàlla geeg ajanaam bëtub xolam ba da koy gis xol bu laab baa ngi ku ci ñoom dafa am leer ni ku dafa am ak leer ni jant la ku bëgg a leeral mu may koog leer ku leer kaa ngi day dëddu nit ñëpp dëgmal yàlla def ni sëriñ Tuubaa defoon bàyyi nit ñi dal ni géej gaa ngi lu mat juróom ñett ciy at sëñ bi génn këram dem jéeri dem géej ba am ndox ndox mu neex maa ngi sëriñ bi moo tax bu jàppee waaju taq tilim mu fóot ko ba mu set kasaa mag ñooña mag ñaa ngi magi sëriñ bamba ñii magi sëriñ bamba nii lañ mel dañuy setale ni saabu bay def mbalaan ba mu set xemeem jaa ngi ñooñee sëriñ bi di wax kuy toog fi ñoom texe na danañ la fàggul lu lu doon xéewal sa ndam laa ngi ak texe ñeel na ku dëggal kande mooy ki dëggal ka jëf la ñuy jëf di bañ lañ jëf dëggël gaa ngi liggéey bi it nag liggéeyal yàlla ñëpp a ko xam doo def lu neexul borom bi naa liggéey baa ngi cofeel gi it mépp mbir moo sopp sopp la mi sopp ku sopp lu baax baax kon cofeel gaa ngi addi yi joxe ngir buur yàlla daa war a lew baya gor ak njaay yu mel nii nag yu lew yaa ngi tuuba li habdin muridin saadixin lahumoo damir ji nag damir ji yombul gaa yi lahum jaa ngi yow booy dëggal dëggalal ñii booy liggéey li nga liggéey yal ñii te booy joxe ngay jox ñii ñu jëm ñu dem ñaa ngi mag ñooñu kat daañu roy mag ñooñu kat dañu daa roy sunna sànni bi daa ba am ci ay wàccuwaay roy leen ñu jub ñaa ngi am nañ ci xent rasulullahi martaba ya mënee su koo bind mbaa wax gaa ñu raw ñaa ngi seen ite ñoom dañu daa xam nag sariha bu wér xamit xaqiqa xamit jëf leen yool yoon wu jub baa ngi jubbanti ak jub jubal yombul bu ñaar yi amul ku wuute ak lii dafay réeral ti tooñ gaa ngi daawuñ di jëf lenn lool atteb sariha xamuñ tamuy lu wér duñu tàbbim lënt mbër yaa ngi dañuy ragal yàlla buñ dee soo ba mépp mbirit ak bu ñuy génn yàllay neen lu niin laa ngi ngir ñoom bu ñuy sóobu tiit bàkkar ba koy xajamal moom lañ ci tiit ga màggal yàlla nit ñaa ngi ñoom ñoom dañoo foog ni ñoo yées ñëpp ñëpp ñoom ñoom dañoo foog ñoo yées ñëpp jaaduwul ñu leen di màggal woroom xel yaa ngi sëñ saa ngi ñoom ñoom dañoo foog ni ñooy saay-saay si ñoo gën a bon ba seeni ñaan sax du doon yuñ nangu góor yaa ngi dañ daa saxoo muñ bu leen moykat yu mag moye mooyee mbaa am musiba mu leen dab nit ñu muus ñaa ngi saa buñ masaa am lu mat weer benn nëtt dikul ci ñoom dañuy tuub ni xee xee ay wuréy waa ngi ànd ak li ñuy sàmm ak liñ jaamu jaamu du tee dañuy saxoo jàq wépp waxtu mag ñaa ngi dañuy sori wor sori naa feq ngir garagal ragal yowmal xiyaam gàcce ponkal yaa ngi mbëri yaa ngi dañ daa toroxlu te nag gëm yàlla rek a taxoon teg dëddu adduna laabal xol yi ñay yaa ngi duñ jàdd duñ dox di sakkoot lenn lenn lu dul la leen di soññ ci wéetal yàlla seex saa ngi seen jikko mooy jëfe xam-xam ak lewet tabe muñ duñ weddi way baax ñi daawuñ woote njiit yaa ngi kon maa ngi jooy sang si may ñàkk ngir fa aw mooy yoon yonneen ba gën nit ñëpp waa jaangi jooy naa ñu baax ñii te dooni sang sangu nañu ci yiwu ak lay ndëxañ téef cër bu doon baa ngi na yàlla sotti ci ñoom xéewal te sotti ci nag ci ngeen ji yoon neen gudul dog ñaan gu mat gaa ngi na yàlla sotti ci ñoom xéewal te sotti ko nag ci ngeen ji yoon neen gudul dog ñaan gu mat gaa na yàlla sotti ci ñoom xéewal te sotti ko nag ci ngeen ji yoon nen gudul dog ñaan gu mat gaa ngi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar